ci ndorteelu waxtaan wi leeral nga ñu ne Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu li mu doon dund mooy tasawuf tasawuf nag li ëpp ci ni ñu xamoon mooy mbooloo la ñu moo xam ne danañ mën a jaamu yàlla lool waaye yëngutu nag duñ ko bari leen bari la wuñ ab yëngutu sëriñ moom bi mu ñëwee ci am njàngaleem wane na ne jaamu yàlla gi lu mu bari bari ak lu mu tar tar dox sa diggante ak liggéey wane ko it nag ci jëmmal ko defar nit ba mu mën a def ñaari rakkan ci guddi gi kaamil bépp mu naafilaa ko ñaari rakkan muy sëriñ Daam Abdourahmane Lo ca bu xëyee du yàqal dara ci ab liggéeyam loolu kon màndarga la wane ne ne fépp sëriñ bi ma sa sañ ni barabu jaamukaayu yàlla bi di nekkee barabu sàkku xam-xam bi nekk fa naka noonu noonu la barabu liggéey ba di nekk kon nga indi leeral ni sëriñ Faliilu yi nag moom sëriñ Touba la doon roy ci lépp moo tax bi mu ñëwee it fa sëriñ Touba jaaroon radiyallahu anhum fa la ba tax moo màndargoo ci ay jëfam yépp nga leeral ne lii màndargaal ab ab liggéeyam ak taxawaayam bokk na ci dëkk yu bari yi mu sañ ci mat fukki dëkk ak sanc dëkk ni mu méttee rawat na ci jamono joojee nga wax ne mënees nga jël ñaar ñaari dëkk ci misaal benn dëkk bi mooy Ndindi mu sanc ko ci ca booba mu yées fanweeri at ca booba mu yées fanweeri at waaye bi mu demee ba am juróom-ñaar fukki at ak lu topp it sancati na ab dëkk kon di màndargaal ne ca ndorteem ba nit fi jógee luy jëmmal ab liggéey liggéey na liggéey bu ràññiku kon dañuy jox sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Modou Bousso lu jiitu ñu koy jox nag daayira bi ñi ngi fàttali ne daayira bi sëriñ Fadil sëriñ Fadil yi nee na ñi ngi fàttali seen waajur bi nga xam ne moom moo fi jógee di sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Abdou Rahman moom Darou sëriñ Cheikh nee na ñi ngi fàttali mbokk yi fi teew yëpp di fetliwaat ñu sakkuwaat ay ñaan fu waay toll nga jàng faatiha ak fukki fukki lixlaas ak benn ñu dolli ko ko yàlla yokk ay leeram ci barke maamam janga ci wajurum maamam ba ak wajurum ba Sëriñ Tuuba radiyallaahu anhu ñoo ngi jégul bu baax a mbokk yi fas yéene jokkoon Sëriñ Cheikh Mbacke loolu moo waral contribution dañ ma waxoon ne ci gën a bàyyi xel ñàkkum xëy ci dëkk bi ndax ni ko sëriñ Cheikhouna waxee ku la mënal sañal na kon nag bu ñu bañee ku ñu sañal dañuy fexe ba mënal suñu bopp kon contribution bi dafay nekk ci ci chômage cause yi nga xam ne moo koy waral di maanaam lan moo koy indi bu amee ba noppi lan mooy netaay ji bu amee bu ñu ko xamee ba noppi xam lan mooy loolu lan lañu ñu nan lañ koy jéem a saafara kon ci njëlbeen yi damay joxe rek yenn mu faddaat yi ngir mën a euh, doog a xuus bi Maodo euh, tubaab bi économiste yi dafa am lu ñuy wooyee euh, marché du travail maanaam am xëy dañ koy xaw a tënkal tëkkale marché ndax dañoo am lu ñu lu ñu niroo mooy marché da ngay yor sa sa yëpp indi di fa jaay si am ñuy jënd si bu ñu defee tëkkalee nag kon loolu ñiy jënd si ak ñiy jaay si kon day mel ne ñiy wut si liggéey ak ñi koy joxe si su fekkee ne nag dafa fekk ne ñiy wut si liggéey ñépp fekk nañu jox leen liggéey mooy li ñuy wax plein emploi ku bëgg am liggéey ku ne am nga su fekkee ne nag da am ñoo xamee ne nii dañoo toll ci war liggéey te amuñu liggéey te di ko wër loolu la ñuy woowee maanaam nga xam ne fi ne adduna bi yëpp rawatina Afrique yëpp am na jafe-jafe boobu Sénégal boo xoolee Sénégal yëpp boo ko boolee dañuy xalaat ne taux chômage bi maanaam ñi nga xam ne waroon mi ñi waroon a liggéey ci population bi nga xam ne ñoo war a liggéey maanaam li ñi am fukki at ak juróom ndax dafa am benn organisme boo xam ne mi ngi nekk ci Nations Unies ñu koy woowee bureau international du travail. dafa wax ne koo xam ne am nga fukki at ak juróom te dama ko retraite te amoo xëy di ko wut nangami fan te amoo ko kooku la ñuy rek koo xam ne chômeur nga maanaam yow amoo liggéey loolu bu ñu ko nattee ci Sénégal mi ngi toll ci fukk 15 pour cent ci Sénégal gépp te damay jàpp ne sax fu mel ne tubaab bu ñu ko doon xool dina dina ko ëpp lool li tax mu koy ëpp. ndax euh, ni ñu koy nattee ci yenn dëkk yi rawatina Sénégal dañuy fexe ba xam nombre bi nga xam ne mooy ñi war a wutum xëy ñu seet ci ñi nga xam ne ñu ngi koy wër amul ko ñu ne kon nag boo xoolee ñu war a xëy ñëpp ñu koy wut te amul ci bu ñu leen nattee ñu ngi toll ci nangam kon damay jàpp ne euh, Touba loolu lu jafee am lay doon euh, ñàkkum xëy moom it boo ko xoolee ci Sénégal dafay wuute. ci diggante góor ñi ak jigéen ñi wuute ci jigéen ñi ñi nga xam ne jàng nañ ak ñi jàngul ak ndaw ñi ak ñi leen xaw a gën a féete mag tuuti euh, ba tax na euh, muy lu doy waar te maanaam ay conséquences yu xaw a yéeme ci nekkinu askan bi euh, ni ko sëñ Fallou bu sa waxee Touba ñàkkum xëy mi fii am mënees na koo waxee ne ñàkkum xëy la moo xam ne dafa jóge ci économie bi koom-koom bi ni mu demee ndax am réew réew yi nga xam ne mooy yi gën a mag ci àdduna yépp yi gën a euh, am koom-koom yi gën a mucc yi dañuy am fu ñuy jaar maanaam da ngay njëkk am sa agriculture muy mbay mi moom ngay doxal doxal ko doxal doxal ba nga xam ne lépp looy jëfandikoo danga koy am da nga koy mën a defal sa bopp soo demee ba àgg foofu ci ngay doog nag dugg ci benn état muy industrie boo demee ba nga xam ne mbay mi mën na laa fajal sa bëgg-bëgg yëpp te ngay doog a commencé dugg nag ci transformation maanaam industrie soo jógee ci industrie doo ko dem li ñuy wax ay service service yi ci la commerce beeg télécommunication beeg yeneen ak yeneen ak yu bëri am boo ko seetlu mel ne Sénégal nag rawat na Touba industrie amu fi service moo fi am te service yi ñu ko fi indi ñu koy jëggaani lu mel ne banque yeeg assurance yeeg yu mel noonu. Euh, ba tax na euh, yoon yi nga xam ne mooy commerce bi ak euh, service yi li ñuy joxe ci ay emploi doyul maanaam li ñuy wut ci am xëy doyul ndaw yi nga xam ne ñu ngi wutum xëy bu baax kon loolu foo jaar mu am jafe-jafe ngir ku leen man a jël liggéey loo ah, bu ko defee ñooñu nga xëy xam ne dañoo am amutum xëy moo xam ñu ngi koy wut ñoo xam wutul ko euh, ñàkk gi ñu ñàkk amum xëy am na ay conséquences nga xam ne moom la ci ñëpp gën a ràññee mooy ak ñàkk ndax bu fekkee ne yow ñi li ci ëpp nga xam ne ay baykat la ñuy doon euh, bu nawet bi jeexee daanaka mën nañu wax ne juróom-ñaari weer wala ñu koy yës tuuti dañu koy chômer ñooñu seenu nekkuwaay dina na a naqari seen wàllu wér-gu-yaram seen wàllu jëfandiku am na ci ñoo xam ne sax léeg-léeg day indi ay jafe-jafe bu leen di dugal ci loo xam ne du seen wàll bu ko defee boobaa day jafe nag comme ni ko sëriñ Cheikh naa doon théorisé ngay mën a sàkk lu lew am na ci ñoo xam ne ah, doon te loolu du aw lu leen di layal waaye am na jafe-jafe yu baree bëri yu ñuy dugg yoo xam ne xëy na ak tumuraanke ak jaaxle ak ñàkk moo ko ci dugal euh, ba tax na daanaka ñun ñëpp kenn ku ci nekk boo xoolee ci li la wala ci yenn dëkkandoo yi wala ci yenn barab yi di gis ne ab xiif amul ci dëkk bi waaye wax dëgg yàlla am na ci bopp garab barab yoo xam ne xëy na xaw ay nekki loolu waral euh, beneen euh, tomb bi nga xam ne bëggoon naa ko jukki muy euh, solution yi solution yi dina xaw a doy waar tuuti ndax Euh, lépp mën ne su ko xaar ci état euh, ba tax na damay jàpp ni euh, li nga xam ne ci lañu war na tàmbalee mooy xalaat Touba fii ak at yu néew fan la war a jëm maanaam la ñuy wax un plan de développement stratégique nga xam ne dañuy wut ay borom xam-xam yoo xam ne seen xam-xam dina màcc ci fànn yu bëri ñi environnement maanaam suñu nekkuwaay ñi wàllum koom-koom ñi wàllu mbay ñi wàllu banque ñu sos sas leen ñu defal ñu lu ñu wax plan stratégique de développement de Touba te it euh, day nekk lu yomb lu yomb lu yomb def ndax lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu stratégie dafay sukkandiku ñaare ci ñeenti tomb ñeenti tomb yooyu bi nga xam ne moo ci njëkk mooy sa doole maanaam Tuubaa lan mooy ay force yoo xam ne mënees na ci sukkandiku ngir mën a def benn plan stratégique bu Tuubaa di développé euh, am na lu muy tuddee identité communautaire maanaam booloo ku ñu booloo ci kenn dog muy dëkk Tuubaa nekk Tuubaa nekk murit loolu lu am solo la doole la euh, autorité hiérarchique maanaam li nga xam ne tënku si ban benn kàddu muy ndigal nga xam ne lu mbir dëgër dëgër bu ndigal jógee mu daal bokk bëgg-bëgg bokk genn kàddu bu ñuy déglu bu loolu weesoo it muy beneen doole boo xam ne am nañ ko muy croissance démographique am nañ ay nit ñu fi dëkk macha allah ñu takk loolu day daal nekk marché boo xam ne def fi dara mu am njëriñ day yow. mu bokkaat ci doole yi beneen muy population boo xam ne bu jeune ay ndaw yoo xam ne waras nañoo mën a nekk ñu mën a euh, taxawal ay liggéey euh, beneen tomb bi nga xam ne mooy stratégie bi ñeent tomb yi muy yi muy sukkandiku muy doole ji léegi day wax opportunité maanaam ay ay ay at yoo xam ne mën naa tax Touba dem ca bi ñun ñëpp xam nañ ne Touba carrefour commercial la fu waaye am looy jaay tubaab nga koy indi surtout lu jëm ci affaire mbay muy gerte gi mel noonu. Cheikh Fallou. Cheikh Fallou. Cheikh Fallou